seneinfo.net laan bikum waa yeewi askan wi démb fañ leen a yeew ca ndakaaru njaay ba tax seen marche ba ñu bëggoon a xamal fa mujj lajj le quotidien yéen kaay ñu ko xamal démb ñaxtu amul ndakaaru de ñoom gàkkoog xalifa sàll ak yi ni mel fa ñoo génn na yooyaay fa ñuy dajaloo waxtaan xool na nañu doxalee marche ba takk der ya fekk leen fa sànni leen lakk lacrymogène gaa yi daw tasaaroo affaire ba jeex l'observateur feelu ko ne ndakaaru koy démb marche amu fa la fa xam nag mooy étudiant ya université Cheikh Anta Diop ñoom yëngal doon jàppante ak a ñàkkante ak takk der yi ba xam na ñu bëri ci ay étudiants yu fa am ay gaañu-gaañu source a ne université jàppante yu métti ca étudiant farandaru sonko ya bëggoon a ñaxtu ñook takk dere ak ñeneen ñu bokk ca maire université fa tàngoon jir démb jàppante ak ay gaañu-gaañu yu bëree fa xam enquête yéen a kaay ne takk der yi tamit démb fitna gi ñu teg ci journaliste ya jur na fa ku fa am gaañu-gaañu direct news na ko ab journaliste bu jigéen la camara women sandarma ya fañ leen a juri lacrymogène ya ñuy daw daanu ab oto ñëw ba ko rawale ko hôpital libération na ko journaliste bu jigéen boobu yaa seen la tudd sonn na de gaañu dëgg la def info yéene kaay ne su fekkente ne yeewi askan wi seen ñaxtu bi démb ndakaaru fa lajji waaye biir yu bëri yeewi fa ñoo ñaxtu askan wi fa ñoo génn ak mbooloo mu bëri wana seen naqar ah, yaw seetal géejawaay démb wàcc nañ ca mbeddee ñaxtu far ndaru Sonko ya nag la wax mooy xel xalaatut ñuy amal ay élection présidentielle 2024 te Ousmane Sonko du ci bokk loolu fa jaaduwut sax Kër Masaar it ñaxtu nañ démb wàcc ca mbedd ya mbooloo mu bëri fa ñoo sàkku nag ñu bàyyi ña tëj kaso te politique a tax bokk na ca seen maire ba Bilal waaye tamit nee na ñetteelu mandat Macky du ko fi xamee njiit réew mi diiwaanu Ziguinchor it yéttet mbooloo mu bari ñoo génn doon ñaxtu naka noonu diiwaanu Sédhiou mbooloo mu bari ba pare fa ñoo sàkku ñu dakkal jàpp gi ñu jàpp waa Pastef fi patriote yi diiwaanu Kolda ñoom it fa ñaxtu démb mbooloo mu bari fa wax na nag ñoom duñu seetaan gars yi di faagaagal liquider Ousmane Sonko ba du bokk ci wote yi te procès Mame Mbaye Niang bii loolu rek lañ ci bëgg na ko voilà procès Mame mu toll nii Ndakaaru njaay geetaru gu mag ak dépêche yéen a kaay na ko ndakaaru njaay kay fi mu toll ni askan wi nokki wuñu ndax fa ñoo jàq critique yéen kaay na leen tey daal mooy bésu dëgg bi laas yéen a kaay ne procès piège la alerte yéen a kaay ne junney danger moo am ci xatteb tey bi tey mooy yéen a kaay ne ndakaaru njaay fa ñoo jàq tiit ragal fitna ju fa nar a xam tey yor yor yéen a kaay dëggal ko ne waa yeewi askan wi fa wax na tey fa amalaat ñaxtu ngir jàppale sonko bañ a seetaan gaa faagaagal ko a bokk ci wote yi fitna seetal école yi ak université yi may nañ leen feet te feet jotagut fa ñoo tëj tey Dakar dem dikk duñ daw tey hay entreprise fa ñoo tëj moto jakartaak yi ni mel gouverneur aaye na ne duñ daw tey ndakaaru waa bitim réew fa ñoo wax seen doom yi nekk Sénégal ñu bañ a génn tey wal fajir yéen a kay na Dakar moo nekk haute tension vox populi ne bésu tey bi lu ne mën naa xew takk der yi ñoom it fa ñoo geetaru taxaw di xaar turbine yéen a ne koom-koomu réewum fi mu toll ne fa taxaw ndakaaru njaay foo tourné takk der yaa ngi fa ndax fa ñoo sonn saa bu Sonko di dem wuji tribunal ñaxtu yi fitna ji jóg comme comme réew mi taxaw enquête yéen kaay ne waaye atte tay bi Ousmane Sonko su ko neexee mën naa bañ a dem tribunal du far force de yoon may na ko ko l'observateur ne est-ce que Sonko dana dem ndax gaa yi ngay wax certificat médical wàllu wér-gu-yaramam ci feebaram bi mën naa tax du dem su boobaa nag fañ koy xàttee gannaawam rek ay scénario yi mën naa métti de yor na ko faala ci yokkal kër Ousmane Sonko cité kër góor gi takk der yaa ngi fa fees del xalaa ma ndir bàjjo xalaa a na man nag faa ragal ne liy ragal ñu teg ko ay daan yoo xamante ne fay tax du mën a bokk ci wote yi le mandat yéen kaay ne mbaadu njuumte ci làmmeñ diggante IGF ak IGE moo nar a teree dem Sonko ca pale ba réew mi yéen kaay ne man kay faa njortu ne Mame Mbaye Niang mii ci moom la gaañu nar a doxee sànk Ousmane Sonko Nicolas Normand ab tubaab la nekkoon na fi ambassadeur bu France fii Sénégal fa mel ni ku leen di wax naan maa ngi bokkuñu xalaat de gis ngeen Ousmane Sonko mii moo a nekk a soppi réew ne attekat ya nag lañ déggoo ak avocat yi mooy tey audience bi fa nar a yàgg lool bu ñu demee ba sa kanam fa noppalu avocat bu nekk fukki minute ak juróom nga xam ngir layool sa client Sonko lu ëpp fanweeru avocat ñoo koy layool Mame Mbaye Niang juróom benn avocat bokk na ca ab tubaab Olivier Paris France la dëkk Vox Populi ne waaye Ousmane Sonko avocat am tubaab ba dëkk France muy xuwaan fa ñëw démb Sénégal ci guddi aéroport takk deree jàpp ko ñu rëfule ko delloo ko na ko demal ñibbi kenn du bàyyi ngay layal Sonko avion Air Maroc fa lañ ko ne gaay yi foofu de sama beneen avocat bu ñu wax Ousseynou Fall fañ ko suspendre ne te xam ngeen ne lii jaaduwut am avocat ñu tere ko na ko du ma layol loolu mooy ne fañ may néewal doole te ñi ko def nag muy bâtonnier bi ak ordre des lii ñu def ni fay firndeel ne fañoo taxaw ngir faral Mame Mbaye Niang na nga ko waxee ci 24 heures yéene kaay leer laneen lu leer ba yegg ca nàññ ja moo ne njiitaram Macky Sall fa xamal coppite gu baree bari ci administration territoriale bi maanaam ay sous préfet préfet fa caa am ñum fal ñu bari ak ñum toxal ñeen fukk ak juróom-ñaar nomination ci ñum fal 46 département la laal ba tax tribune yéen a kaay ne fay laaj yan pexe ci la Macky nekk njiit réew mi ndax lii mu def nii ah <laughs> baax na moom njiitaram Macky Sall nag ca la Soleil yéen a kaay ma ngay woote ak solidarité ngir a jàmmarloo ak menaces yi nga xam ne fa ñuy xeex àq ak yelleefu doomu aadama ña ngay wane seen ak jaaxle ci kàddu yi nga xam ne procureur Ibrahima Bakhoum yëkkati na ko fi libération di ñu xamal ne teg loxo gi ñuy teg loxo docteur yi nga xam ne seen clinique ba fa la Ousmane Sonko demoon ngir faju muy suma assistance ba léegi affaire bi jeexagut de yow seetal docteur ala bi defeere nañ ko ca kanam procureur turbine yéen a kaay na gars yi kay ba léegi ñu ngi teg loxo fa ñuy jàpp rek yóbbu kaso la mu jàpp ba wax ko moom bira seen mooy ne Ama Balde bala moo bëree ak Modou Lo faaw day bëree ak Gris ba pare sunu làmb yéen a kaay na njiital CNC bi jeexal na wax ji kon.